Euh, mouvement bi dañ ko créé bien avant euh, pour taxawal euh, liggéey président Macky Sall jàppale ko ànd ak moom man nag opérateur économique la maa ngi yëngu ci immobilier maa ngi yëngu ci lépp li nga xamante ne daal mën naa ci am bénéfice. Mm-hmm. d' depuis combien de temps yaa ngi ci. presque depuis mm-hmm. ngi ci. Mm-hmm. léegi yaa ngi si depuis 2004 macha allah nga ne ma 2017 nga def sa benn mouvement boo xamante ne pour jàppale Macky Sall choisir Macky Sall. parce que. Macky lu tax ma choisir ko benn kilifa la bi nga xamante ne bu ñu ko jàppale dina yóbbu réew mi kanam dina yóbbu Sénégal bi nga xamante ne ñeneen ñi yóbbuñu ko foofu loolu mooy sama première euh, bëgg-bëgg pour jàppale ko parce que day day liggéey Sénégal

Euh, li ñu li ma gis ci liggéey borom réew mi mooy son excellence président Macky liggéeyam boobu bu rafet ak bu war a yóbbee réew mi kanam looloo tax ma nem wax sama waa région jóg ngeen taxaw comme ñun

bu jublee ñu waaw xam nga euh, du ñëpp koy nangu mais du ñëpp koy bañ tamit ci biir nangu yooyu ñi nga xamante ne euh, social parce que foofu la commencé politique sociale politique du du du du wax lu la neex kese politique du wax loolu def politique social la da ngay jàppale nit yi ñu jàppale ko ci biir jàppale boobu euh, jotoon naa jongol cent quatre cent quatorze enfants ci biir région bi ma def yeneen liggéey yi nga xamante ne ay jàng ma def yeneen liggéey ci yi nga xamante ne ci ay daara ma yeneen liggéey yi nga xamante ne ci biir euh,

yàlla may nañu ndam ci région ci région lu mu musul am ci set Tambacounda mm-hmm. ren am na ko donc euh, loolu bokk na suñu liggéey te du loolu Tambacounda kese la ñuy dem nañu ci 3D Tamba Touba Thiès Thiès liggéey nañu foofu tamit suñu mouvement liggéey nañu foofu euh, Touba Touba euh, suñu mouvement ñu ngi foofu liggéey nañu foofu tamit. 13000 fois 13000 fois donc loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne ñun suñu mouvement liggéey na ko. te yemul 3 yooyu. dem na ko ci biir diaspora bi parce que diaspora bi. Euh, comme exemple côté euh, Mantes-la-Jolie

non loolu bàyyi naa ko ci ñi nga xamante ne. ñoo koy ma pour le moment euh, man dama ñëw rek pour jàppale président bi euh, Macky Sall jàppale ko yàlla may ko fan ak wér euh, yéegéel yi yéen bu mu yéen nii yéegéel yi. muy deuxième mandat bi muy deuxième moo moo lañu ne moom moo wax li troisième mandat bi ngi koy lam-lam léegi troisième bu demee ba ba ba pare deuxième mandat yow bu pare nga yow nga ber sa daara pour dem wala da ngay kum la boolee da nga daal di dem ànd moom euh, daara bi ber naa ko ba pare mhm. euh, moom mu nekk fii daara bi mi ngi fii mhm. mu bañ nekk fii daara bi mu mais dem ci ndigalam ngay wéyee euh, daanaka ndigal amu fi mhm. ànd moo fi nekk ànd moom mi ngi mi ngi ci yoonam man tamit dama topp ci yoon boobu pour gën a ko jàppale keneen ku ñëw bëgg a def lu yees moom lu mu def du ma dem ak yow mais ku ñëw ku ñëw bëgg a def lu ëpp loolu dinaa ànd ak yow parce que Sénégal moo ñor du du du du du Tambacounda du du du Dakar euh, Sénégal ñor pour que euh, képp ku fi ñëw mu war a jiit nekk jiit réew mi dinaa la jàppale bu dee soxla nga sama jàppale. kon yow daal da jàppale waa Tere sa mouvement bi jàppale la fi ngay jàppale jàppale képp kuy liggéey Sénégal te képp kuy liggéey bëgg naa ànd ak yow ñu liggéey Sénégal Macky Sall euh, da ngaa deuxième mandat man ci li ma comprendre ci constitution bi dañu ne président bu ñëw. doo mun a def plus de deux mandats de cinq ans successifs mais man gisuguma moom mandaam cinq su dee dañuy sukkandikoo ci waxu euh, euh, constitution ñu ñëpp Sénégal ren képp ku nekk xam nga lu constitution bi wax dañu ne ñaari ñaari mandat juróomi at moom benn mandat la amagum juróom at beneen mandat boobu ci biir boobu la constitution bu bees bi génn te amul fenn fu ñu ko tuddee ci biir constitution bi que sept boobu bi mu def bo- bokk na bokkut kenn waxu hmm. parce que tubaab tubaab moo ko bind tubaab lañ ko bind boo ko buggee tas moom xëy moom moom ci ci ci ci ci déontologie si mun na ne man bëggatuma mais ci yoon ak ci constitution lu mu wax am na droit deuxième mandat. nan jàmm ak salaam parce que lu dul jàmm dara def euh, nit yi même temps yonente bi du ñëpp ñoo. at bu wér muy ku nekk am na ñi nga ñi nga xamante ne ñu ngi ŋàññi am na ñi nga xamante ne ñu ngi approuvé lu mu def donc surtout président Macky Sall euh, lépp lu du ñëpp ñoo koy ñoo ko bëgg du ñëpp ñoo ko bañ tamit loolu la. lan ngay wax opposant yi nga xamante ne ba léegi ñu ngi bañ. opposant yi. seen loxo bi félicité ko pour kii euh, ci ci ci victoire am bi ginnaaw félicitation bu ñu koy jox ci victoire am parce que du ñoom ñoo ko wax jox victoire sénégalais yi ñoo ko yooyu ñuy ko wóolu ba jox ko loolu ñu nangu ndogal boobu ñu nangu euh, li sénégalais yi may président parce que ñoom loolu lañu ñu wër pour am lu mel noonu kon bu ñu ko joxee keneen nañ ko rafetal boobu ñoom tamit ëllëg bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko euh, aj demee boobu bugg ko bu ñu ko ko jot noonu nit yi rafetal leen ko. d'accord comme ni ñu ko waxee sànq foog ma am fu ma dellu si waat tuuti parce que nee nga sànq da nga jàppale Macky Sall ci région de Tambacounda euh, bëgg naa xam ndax jàppale bi nga ko jàppale. da ko jàppale pour moom parce que bëgg Macky Sall gis li muy def wala da bëgg. ci ci ci remaniement bi muy waaj ndax dañ ci bëgg benn bos. Eh, xam nga kuy liggéey pour réewam. Mm-hmm. moom mii nga xamante ne moom moo jiitu Sénégal tey mm-hmm. eh, jàllul premier tour bi parce que Macky Sall kese la jëfam moo tax ak lu mu wone Sénégalais yi man tamit sama ak li ma ci ci liggéey lu mu méngool suñ ma ko joxee ma jël suñ ma ko joxewul population bi dina am bis bi nga xamante ne dinañ ko def. li mu méngool mooy lan. li ma méngool maanaam sama liggéey ou moom lu mu méngool mooy tey ñu jiital ko encore mu euh, yore Sénégal juróom at juróom at yi nekk ci kanam mu yor ko. beneen juróom at tamit mun na am mu talaat nit ñi mu talaat loxoom. ba léegi monsieur Dansokho sama question bi daa mel ni léegi doo ko hmm. ndax xam nga jàppale bu nekk euh, mag bi su ma tuddee pour saw. Hmm. donc su may euh, investir investir wu ma samay bien pour que Macky jàll hmm. kese. dama bëgg ñun ñëpp jëriñu ci ñun ñëpp ah, mooy ñaar mooy sénégalais yëpp jëriñu ci ma bokk ci jëriñu. waaye foofee ca Tambacounda nee nga yaa ngi jàppale jeunes yi ndaw yi am nañ ñoo si jara jot a dugal nekk góor ak yeneen ak yeneen xanaa buñ bu ñu dewoon ne ñoom bu ñu bëggoon nga nekk seen maire wala yow li ngay def noonu peut-être maire daa tax nga def ko est-ce que dina mën a. maire boobu. Mm-hmm. Euh, mi ngi ci yoon ci yoon jeexul waaw si. yow ci ban yoon nga nekk. parce <laughs> maa ngi ci yoon politique. waaw ah. ci yoon politique boobu. Mm. Euh, waaw si du jeex parce que dina dem sax ba ma commencé daw lee. Mm-hmm. président mu doon bu mu ko doon def ci Fatick ci campagne bi. donc loolu yëpp ay astuce la ci biir euh, futur bi futur bi mooy lan lépp luy jëmale. suñu Tamba suñu gox jarakoto kanam su ma ko gisee te ma war a ci def ba ma war a ci dox ba ma war ci wax naa ko def mooy ma am nombolo tànk bañoon am nombolo tànk parce que fii bu ñu xale yi commencé dox parce que courant amuloon jarakoto bi ma ci waxee yàlla saafara na ko sama ñaan kilifa yi ñu ne ma avant élection incha allah courant dina jow jara ko te yàlla def na ma ko noonu comme ni ñu ko ñaane ak ni ñu ma ko waxee. jërëjëf monsieur Dansokho ñu lay jaajëfal bu baax a baax lan ngay mooy sa kàddu bu mujj ak lan ngay ñaax jënde monsieur le président de la République Macky Sall bon Macky Sall jarul ñu ñaax ko daal xam la mu war a def il a fait les quatorze régions. Mm-hmm. dara desoo am na lu ñu la lu ñu ko waxul am na lu ñu ko wax balaa 14 régions campagne bi demoon na tournée économique am na lu lu baax ak lu bon ci biir réew mi donc bu ñu ko ñaax dara moom xam na lépp ku xam nag boo ko buggee ñaax dañ koy yoon dañ koy dañ dolli euh, euh, euh, poids bi rek mais moom yéenu na ba pare parce que xam na lu mu war a def donc maintenant pour euh, région Tamba xale yi góor yi ak yooyu ma ngi leen ñaax ñu gën a jóg jàppale président bi gën a jàppale président bi parce que euh, boo ko jox boo joxee nit yi bopp nga rocci ndab bi dafa mel ni ba léegi des na donc bu ñu ko joxee euh, premier tour nañ ko joxaat encore noonu assemblée national pour lépp lu mu dogal mu yàlla antal ko. jërëjëf Allo Dakar ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit euh, euh, promo ville ak PUMA ak euh, PUDC maa ngi ñaan président bi mu bañ a lu mu fa dig waa Tamba. merci beaucoup cant ak ngërëm ñeen na leen nee naa leen seen émission li ci xel la woon beneen numéro incha allah fii ci Allo Dakar jàmm ak jàmm.